góor mu doon thème boo xam ni askan wi ci boppam ñoo ko doon sàkku ba tax ñu indil leen ko waaye di ko eggale tey ndax am na kër yu bari yoo xam ni loolu moo ko moo ko tas te mag ñi daan nañ ko saafara ci alxuraan ak ci wàllu garab yi képp koo xamante ne rek danga am kàttan ci wàllu dangaa ñàkk kàttan ci wàllu sëy dangay dem ca yaa ayyuhal musammilu xummi layla ilaa leen aaya 5 boo demee di nga gis aaya boo xam ne mu nga tàmbalee ina nasihata layla asado nga bind aaya ci muqi jeexe nga bind aaya bi 99 su ko defee nga def ci nga def ko saafara soo ko defee saafara nga def ci xorom di ko naan kaas suba ak kaas góor loolu boo firi woon aaya ji ndax temps bi moo gàtt di nga xam ne li may wax méngoo na ak euh, ci wàllu ngóora mm-hmm. ñu bàyyi ci xel soxna Aysa lu ci bari ci wàllu ngóora wére di moo koy waral mooy faral di ko wax ñi nga gis ñi nga xam ne leen gis seen biir yi di am ballonnement di am air muy tiim seen naq yi ñu ci bari dañuy am problème ngóora bu fekkee waaw bu fekkee du bind bu la yàlla bind nga xam ne sa biir bi day am air wéeré day waral loolu wéeré di day waral néew kàttan wéeré di googu nag mën naa doon yelaw mën naa doon ci dund bi mën naa doon tamit am foom mu bari mag ñi daan nañ def euh, li raxas naq nga xam da koy raxas ba mu set muy daqaar tubaab soo amee xas mi boo defee nga di ko baxal di ko naan kaas suba ak kaas ngoon mbooleem lu nekkoon ci sa biir loo xam ni bokk ci lu nekkoon ci sa naq ci air ci wàllu lekk gu rees gu génn lépp lay daal di raxas bu ko defee loolu bu daal di bu dañee ba set wecc ci sa biir rek dangay daal di am kàttan ci wàllu ngóora lu ci bari ak wéra di la rek mhm. waaw ki xam ni nag moom dana mën a sëy waaye day gaaw a pare ndax am na ci koo xamante ne mus na ma ko jàmbat ni ma moom day am kersa sax ci soxnaam ndax maanaam pare gu muy gaaw a pare euh, nga xam ni euh, bari na ci am na ci liggéey boo xam ne dama koo jar bu defal ko ko waaye fu nekk nii masha allah waaw bu fekkee day gaaw a daanu ci sëy ndax am na ñoo xam dana am kàttan waaye dañuy gaaw a pare ñii gaaw a pare nag leen ma déglu ñaari turu yàlla yi yaa xawiyu ak yaa matiinu mm-hmm. xam nga yaa xawi yi soo ko adatoon araf yi cent seize la yaa matiinu soo ko adatoon araf yi cinq cent la bu ko defee arafu yaa matiinu da koy danga koy bind ci yaa xawi yu da ngay bind yaa xawi yu cinq cent nga bind arafu yaa matiinu nga bind ko cent six mm-hmm. bu ci nekk ay arafam da koy bind ci bii bu ko defee nga def ko saafara saafara soo nag da koy togg. noo koy toggee. danga nga ciy def petit cola. Mm. def ci jinjeer. jinjeer. def ci xorom polle. def ci reenu keek boo demee ci ñi jaay garab yi am nañ ko soo ko toggee ba mu baax ñaari yoon nga def ci xorom tegg ko bàyyi ba mu sedd ba nugg rek nga ci naan kaas suba kaas ngoon léegi waxtu woo koy naan nag bu fekkee dafa sedd da koy nuggal ba mu nugg. nga naan ci. Hmm. moom bu fekkee da nga ciy naan di bëgg a tëdd moom da ngay tàmbalee yëg sa bopp te it dina xam ne am na foo jaar ndax yaay sonn bàyyi yow yi ci boppam yaay sonn bàyyi. bu leen di wax secret yi nag. waaw def leen seen yëf rek. yaay sonn bàyyi. Euh, jigéen ji mën na koo bu ko déggee nii ma ko waxee mën na koo defal jëkkëram jox ko mu naan ndax lu baax la mag ñi tamit daan nan saafara xuwatu sakar maanaam ngóora mhm. ci ci ci ci faatihatul am na ci secret boo xam ni mercredi ba mercredi leen koy bind balaa jant bee génn suñ julee fajar mhm. muy iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan nañ ko bind àllarba 19 waaye ndoxum sam-sam dañ koy xooje bu ko defee nga suukare ko lem di ci naan kaas suba kaas ngoon moom tamit lu doy waar la mhm. ci ci ci wàllu ngóora ki nga xam ni tamit moom day gaaw a so day dafa néew kàttan xam nga nit ki mën naa am kàttan ba pare di gaaw a pare waaye ki xam ne dafa néew dafa néew kàttan ci wàllu sëy lii tamit ci wàllu garab olof la day wut xobi keek mu fexe bam mu wow koŋ ba xobi wow ak xobi daqaar mu bàyyi bam wow mu dem ñu walal ko ko sunguf su ko defee da koy suukaree day jël lem def ko ci yëngal ko bu ko yëngalee ba mu far mu di ci barkeelu kudd suba ak kudd ngoon moom it lu baax la ci wàllu sëy mm. si da koy xooj wala da koy maq maam sunguf si mm. bu boolee ñaari sunguf yi day jël lem sotti ci ah. ko yëngalee day xaw naqara bu defee mu di jël kudd suba kudd ngoon baax na lool ci wàllu néew kàttan te yii ñu wax yépp bu ci mm-hmm. nekk dañ koo jar bu maam dañ koo defal ay nit gis ñu ci am ay résultats d'accord waaw bu fekkee ku góor kii day manqué maanaam ndox ndax góor bu manqué ndox day waral du gaaw a sentir boppam te góor it dafa war a gaaw a sentir boppam loolu moo yoon léegi nit ki mën naa fo walla mu caaxaan wala mu bari li muy sëy dem ba nga xam ni mu manqué loolu léegi euh, day tax moom du gaaw a yëg boppam am na ci soxna yoo xamante ni ñoom xam nañ li may wax dañuy bëgg seen borom kër yëg seen bopp waaye day mel ni ñoom euh, duñu yëg dara kooku nag bu fa boo fexee ba mu yëg boppam benn benn yoon benn yoon boobu du ñaar bu defee benn yoon day gaaw a pare te bu paree tamit day sonn te nit ki bu yoree mën naa say ñaar yoon wala ñett yoon ci benn guddi bu fekkee wér na am kàttan te loolu lépp néew néew néew ndox moo koy waral ndax ndox mi mooy dooleel euh, awraam ba mu mën a yëkkatiku. mën ni yu waaw waaw mën ni yu bu ko defee day jël nenu original nenu original mooy nenu. ginaaru olof mhm. bu dee nenu ginaaru élevage moom dañ koo jox pondeuse ba mu nen bu dee nenu ginaaru olof nag ak séq moo ko tëb ba mu nen kon bokkuñu. moo tax ñu ne nenu original mooy nenu ginaaru olof soxna Aïssa mhm. bu ko defee nga am ci ñaari nen nga toj ko lu weex li nga sotti ko ci kaas lu jaune li ba bañ a dugg ci kaas bi nga def ci nga sotti ci lem yëngal ko dana xaw a naqar nga gëmmu naan ko di nga gaaw yëg sa bopp wax dëgg yàlla bis boo boo paree rek ñëpp soxna si danga xam pare nga même biti béti cola petit mm. soo amee juróom bis bu nekk wala ñett bis bu nekk soo ndékkee benn soo añee benn nga xolli benn yey soo reeree nga xolli benn yey góor gu saxal loolu rek yàlla mën na koo defal mu bañ a am manqué kàttanu sëy kon daal di gànnaayu petit cola baax na waaw fi may daaneele sama kàddu ci wér-gu-yaram euh, mooy euh, mbar boof mm. sunguf si bu fekkee da ngaa bëgg di am wér-gu-yaram ndax soxna Issa da ngay gis xale bu ndaw xale bu ndaw toll ci digg dooleem di la jàmbat ngóor xale boo xam ne dafa war a am kattan ndax daa toll ci digg dooleem di la jàmbat ngóor a yëf yi doo xam ni mu demee nan nan lu ko waral waaw xaw ma xaw ma fomee tax xaw ma xaw ma xaw ma dund bee tax lekk ndawal rek tëdd tamit baaxul mën naa indi lu nekk ci doomu aadama. moytu leen dibi gi. waaw lekk dibi rek tëdd moom. lu ko gën a hmm, dansé amul waaw te ñu baari fu ne nii jàpp na ni loolu mooy ak wataroo. jërëjëf. bu ko defee suufu mbar boobu boo ko jë boo ko jëlee nga am ci ngëbu loxo nga def ko ci marmet wut ngëbu daqaar def ko ci marmet wut ngëbu ngëbu kii bisaab def ko ci marmet weer woo dugg nga baxal ko naan te boo koy naan it bul génn. guddi gi nga koy naan boo xëyee bul génn dana leen demoo fenn. Mhm. dalay lay yafal maanaam dangay ngay jaabante ci toilette suñ ci waa na boo dee def yéer woo dugg def ko nee na docteur mën naa bañ a am wàll ci yow. jërëjëf da ngay am wér gi yaram maa ngi leen koy digal kuy seetaan émission bi euh, di yemale foofu kaddu yi ndax watu sagar moom ñu ci xam bari na. Mhm. waaye ci junj ak yi nga xam ne mën na mënees na koo joxe mooy yooyu ñu ku ko dégg yàlla ku ko defit yàlla na la yàlla may nga am ci lu kawe sa njort. képp koo xam ne dese na ngaa leer soo ñu woowee ci 78 530 69 81 maanaam 78 530 69 81 wala nga woon ci 76 883. 1876. jërëjëf lépp lu ci lëntoon rek soxna Aïssa dinañ ko ko leeral. jaajëfal nañ la bu baax a baax waa régie ngeen baal ma ah, bi Kéna merci ça a été un plaisir je vous rends l'antenne 10 heures flash d'information 11 heures ngeen ànd ak Sista Maria ak Bira ci mi journée avant première ñun ñu ngi leen jox dig daje ba ëllëg incha allah